صلاة الذي في كل سار وفي سفر حماني على ماهر مع الحفظ والسفر depuis 1921 ba 22 mu sant kontaan lool oo mbokku taalibe yépp fii ci njaareeb mu ne leen ma sant le ne leen ma sant la sunu borom fii la ko waxe woon ci bàkk bu tedd bii kon tey bis boobu bu ñëwee daaw ba ren at yi fukkeel at ci ren sëñ seex jërëjëf njaag ñu nga àndal tey def ngeen lépp liggéey liggéey bi yore jikko taalibe kenn ci yéen jéemu cee feeñ jéemoo leen sax wax yàlla neen yàlla fay ngeen organise ko tey jii ñëpp ñu xool la sëñ ba waxoon ñu commencé bis bi tey jii muy premier safar waa njaaram yëpp génn di sant sëñ bi di ko sant ba ñépp diñ ci roy kon yéen jërëjëf mbokk taalibe yi kenn amul seen fay man mi nga xam ne may meeru njaareem di meeru dëkk bi man de duma dolli di sant sëñ Touba ndax maa gën ci meer àdduna bi ndax meeru njaareem fi sëñ Touba def 15 ans jël jumaam ji xot tegal ko boppam posel ko julli ci jël jël armeelam yii defar ko ni képp ku fi xëyee fanaane xëye képp ku fi képp ku fi yendu fanaani àjjana ma nekk ma nekk meeru dëkk boobee nekk gën ci meer yëpp wan man sëñ Touba man xaw ma ku warta sant sëñ Touba man maa li far war naa sant sëñ Touba ndax li ma nekk yombul de meer yomb na waaye meeru njaarim du yombul <laughs> jërëjëf sëñ Touba di seen sant ñëpp te bis bii nag nañ ko téye fonk ko ndax njaarim nag dana war a fonk sunu bis yi ndax nag sëñ Tuubaa dañoo defal lu mu deful kenn te ñun nag dañ ko war a xam booloo nekk benn di fonk bisi di ponk sëñ Tuubaa la waa Njaay walla Ndar def ñaar rakk yi ñu def ba buñ ko def àdduna bépp fekk si leen ñu nekk bis sëñ Tuubaa waa Dakar def ko buñ ko defee àdduna bépp fekk leen waaye ñun waa Njaaréem nañ nekk benn ba def suñu bisu Njaaréem ba xam àdduna bépp war ñu fee fekk